di sant yàlla bu baax di julli si yonent bi di sant ñi ma àndal ñëpp ci ci liggéey bi di wax rek réseau bi mu ngi bokk ci benn banqaas bu ñuy wax mouvement ànd suqali Thiès ak Habib ñaa Habib Niang nag daf di ndawu cees bu ñëw di jàppale le président de la République monsieur Macky Sall ci politique de développement am mu dugg nag ci école yi bëri na domaine nag mais ñun domaine bi ñuy yëngu mooy domaine u njàng ak njàngale mu dugg si di def ay action concrète manam lu nit mëna gis lu mu nit mëna tek loxom loxoom na école brigadier chef Makan Diabaté ñëw na école capitaine Moussa Dioum ñëw na CM Diakhao Base ñëw na école Cheikh Souleymane Diouf école chona chapon fi mu nekk nii nga école darou salam di am lu mu fay wajal té bu da fay xol problème école bi lu ci mëna a mu saafara ko gannaaw lool nak si la talal loxo kat yi pour ñu ñëw and ak mom liggéey bi ngir ñun ñukay xelal orienté ndax bi mu ñu recevoir loolu la ñu wax dafa soxla ñoo xam dañ koy xelal di ko orienter ci politique de développement bi mu moom nag président Macky Sall la àndal ñun ñu ànd ak moom di liggéey ci loolu. dafa fekk ni jamono jii ñu toll euh, ñaxtu yi dafa bari te ñun ñëpp ñoo bokk mbuus muy jàngalekat bi muy nguur gi muy xale yi muy parents yi te ku nekk nag dafa am waar bu mu ci war a béy am ci àq ak yeleef waaye nag waruñoo yàq njàngale bi ak njàng mi. looloo waral te gis nañu su suñu revendication yu si bëri ay problèmes yu ñuy posé ay acte la ay reclassement ay këyit ak fa nga war a jaar pour say këyit lijjantiku ñu ne nag comme njàng moom du wees jàngalekat dañuy ñun tamit dañuy jàngale dañu dañuy continuer di jàng ñu woo am ab conférencier borom xam-xam mu ñëw di ñu wax ci plan de carrière u jàngalekat bi maanaam fépp fi nga xamante ni fa nga war a teg sa tànk yow jàngalekat bi sa sa sa yoon leer fii ba ba ngay yàlla su ko dogalee ba ba ngay àlla traité donc looloo tax ñu ñu tànn thème boobu maa ngi ànd nag ak bureau bi man coordonnateur bi laa c'est un bureau provisoire ñii ñii ñu àndal nii ñoo nekk ci biir ñu ànd di liggéey boobu ba léegi nag ñu ngi ciy jàpp di ci liggéey maa ngi am occasion nag di leen gërëm di leen sant ñoom ñëpp ku nekk jàpp na si ñu ngi leen di gërëm ci turu Habib Niang di leen gërëm ci sama tur man tamit. ñu ngi ñu ngi tàllal loxo suñu mbokk jàngalekat yi. di leen wax nii politique de développement la ñuy def ñun ki ñu àndal ñëwul di digee dafay ñëw li mu mën mu def ko lu mu mënul mu wutu ko ci président la république donc ñu ngi ñaan jàngalekat yëpp ñu ñëw fekk suñu ci réseau bi suñu siège mi ngi nekk jaxaaw ci wetu camp Michel Legrand boo ñëwee foofu boo laajtee mouvement réseau ànd suxali Thiès di ñu gis am na ay permanent yi fa nekk boo ñëwee boo soxlaa suñu contact danañ la ko jox wala nga bàyyi fa sa contact ñun bu ñu ñëwee dinañ la woo suñuy réunion pour ñu gën a yaatal